ci yenn kaay yi. ci yenn kaay yi. ak yenn kaay yi yenn kaay yëpp daal enchaînant match Sénégal ak Tunisie du quotidien moom diñu xamal ne Sénégal dem na final waaye gannaaw bi nga xamee ne jàkkaaroon na Tunisie xamal ne allah ak waar match bi a rëy direct info xamal ne gaynde ji nag ñu war a jàkkaaroog ñi nga xam ne ñoo di ji gi bi war a daw gannaaw bi nga xamee nag war naa daw ci àjjuma ji dinañu xam xam fan la coupe bi du mu jamono ji nag Aliou ma teggi woon enquête yéen kaay moom di xamal ne sénégalais yi dañuy jël coupe bi par la force mën nañ ko kaar bu ñu catu jamono jooju nag El Hadj Diouf mi bokkoon ci gaynde Sénégal yi di ñu xamal ne Sénégal dañoo boor booloo ngir ñu mën a jot li nga xam si ne moom la ñu yóotu njiitu réew mi di président Macky Sall Égypte la jëm ngir mën a supporter gaynde Sénégal yi ak yeneen pexe yoo xam ne mi ngi koy def l'observateur di ñu xamal ne mat match démb bi nga xam si ne moo am ci Sénégal ak Tunisie mu nekk match bu métti waaye tamit nekk mat match boo xam si ne xeex dox na fa ca diggante journaliste yi